question bi ah déjà euh, format bi euh, le premier ministre toog ak euh, certains ministres ñu wax l'état des lieux benn ndax ñoom la waroon ñaar aussi li ñu expliqué ci fond bi ñu bëri Sénégal tey dañoo dañoo tiit jàpp nañ ñi fi nekkoon ñoo raw ay vampire nga ma ci wax ji yow ban ban jàngat nga ciy def. waaw merci Mamadou Awa donc comme li nga ko waxee ah mbir mi lu garaaw la. Mhm. c'est très grave parce que lii moom bu dee am na yoon war naa def liggéeyam. mais bala maa ñëw ci loolu ñun dañuy sant yàlla ñun waa parti démocratique sénégalais le format c'est classique hein. Mm-hmm. c'est comme ça. donc dara lu mu warul def. non non format bi moom franchement. il il appartient quand même aux aux nouvelles autorités. qui sont voilà nouvellement élus. Mm-hmm. effectivement de faire l'état des lieux. Euh, man sax ñoom seen format ni ñu ko defee moom moom moom laa gën a naw que ni ko fi waa APR defee woon contre le PDS moo tax ma ne ñun waa Ablaye Wade taxaw ne nañu auditer sama sa sa sama sama sama gestion ba pare ne tekki ne sama doom yi nga xam ne amoon nañ sax ay responsabilité ci ci ci état bi nañu leen auditer. parce que moom xamoon na ni sa gestion était était clean pour euh, pour dire comme les Anglais. Mm-hmm. Euh, ñoom le régime de Macky Sall ñoom ñu ñëw xool. gisuñu dara dara lu ñu war a mën a reprocher euh, Abdoulaye Wade gisuñu dara lu ñu war a mën a reprocher son régime ñu indi la cour de répression de l'enrichissement illicite PDS ak ñi mu àndal muy Abdoulaye Wade muy Karim Wade muy bépp sénégalais boo xam ne Abdoulaye Wade mës na la responsabiliser amul ci benn gestion bu ñu la jëlee tëj la ci dañ ne rek la créé la cour de répression de l'enrichissement illicite qui était un instrument rouillé effectivement qui ne faisait même partie de de de l'architecture institutionnelle et judiciaire de notre pays ñu génn ko c'était pour casser le PDS pour casser la famille politique de Abdoulaye Wade pour mettre même comment dirais-je euh, sais pas mais les mots sont sont Ibrahima séeréer bi rafet na wax ñu foo ko jëlee. lan ci maanaam comme ñu ne Ibrahima séeréer bi rafet na wax ñu fan nga ko jëlee. loolu mooy la yow dénk nga ma xaalis mais xoolal fan mhm. la reddition c'est c'est normal dans un état mais ñoom bi nu ñëwee mais def nañ loolu xool nañ gisuñu lu ñu lu ñu war a mën a incriminer Karim Wade gisuñu lu war a mën a incriminer Ablaye gisuñu lu war a mën a incriminer képp koo xam ne Ablaye Wade joxoon na la ay responsabilité mais ñu ne ñii il faut que ñu créer leen des problèmes. ils leur ont demandé l'origine de leur fortune. mais yow la maison du point E là bi Ablaye Wade am. maître Doudou War mi xam na ni. loolu bu ñu demee ba ko loo tax may la man je le respecte. na kër parce que moom taxawoon na wax dëgg yàlla en mhm. ci jamono jooju. ne il était contre il s'est même déplacé à à pour rendre euh, comment dirais-je. visite euh, Karim Wade. Mhm. mais yow la maison du point E bu Ablaye Wade ah. depuis ñu ne xale ñu ngi koy dégg. avant mhm. nga jël ko ne Karim Wade moo ko moom. mais loolu c'était du sabotage bon bref kon man ñun waa PDS ñu ngi sant yàlla. ñii nag dañoo ñëw. mais c'est leur gestion la gestion du régime de Macky Sall. Mhm. qui est fouillée effectivement et que y a des des malversations y a des détournements yoo xam ne loolu la ñu wax. bon la présomption d'innocence gëm naa ko man. mais le premier ministre est-ce qu'il l'a respecté en citant des noms. il a parlé de Amadou de Macky Sall. maintenant moi je dis que. Mm il appartiendra à ceux qui sont euh, cités. effectivement de venir faire face à la justice et de laver Sall. même Macky Sall. parce que nag au au delà de de de de de de de de l'immunité kii kii mais pour moi l'honneur n'a pas de prix. c'est vrai moi je pense que ñi ñu cité war nañu ñëw faire face à la justice pour raxas seen der. mais li est-ce que mën nañ koo dégg par rapport ak ces dettes non déclarées ak xaalis bi nga xam ne dana mëy kenn xamul fu mu loolu mën nañ nangu loolu. waaw mhm. loolu am na parce que bu ñu demee man laa dette. man dama bokkoon ci député yi nga xam ne dañu porté woon combat wu bi parce que man je me le la vitesse avec laquelle le Sénégal s'endette mmh. et c'était extraordinaire et boo xoolee effectivement ñun suñuy ressources na mu meloon maintenant on nous dit qu'il y a les ressources euh, naturelles peut-être ça va évoluer mmh. mais ñun suñu koom-koom ñu woon ñu am niveau d'endettement boobu a chaque fois dama doon xeex nañ ne leen combattre dette bi parce que la dette ñun bi ñu ko évaluer à l'Assemblée nationale ça tournait autour de 13 milliards mmh. mais là on nous dit milliards milliards milliards le président euh, voilà. milliards. milliards. milliards maa ngi naan mm-hmm. milliards lañ ko évalué ñun mm-hmm. au niveau de l' nationale. te je pense que ñoom officiellement loolu lañ déclaré woon mais là c' milliards. le premier ministre wax. donc il y a un milliard yoo xam exactement loolu il faut que ñu kii. ñu leeral ko ce qu'il faut retenir daal man li ma jàpp mooy. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañu leen cité. ak le régime sortant war nañu ñëw taxaw effectivement devant la justice ñu leeral loolu parce que nag ñun réew mu ndóol la ñu Sénégal yow mënuñu la jox ay milliards ngay dugg ci oto. ñu koy mhm. climatiser ngay toog ci bureau ñu koy climatiser boo demee ci àll bi am na ñoo xam ni du ñu lekk. bu ñu feebaree. bu yàlla yàlla taxawul dañuy dee. Mhm. ñu war a jël xaalis boobu def ko ci ñooñu. franchement ñu jël xaalis. mais mais mais Ibrahima am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne gis nañ ci tuuti politique. parce que contexte bi ñu nekk élection yi euh, ginnaaw suba la daanaka nga tudd ay tur koo xam ne sa adversaire la il a une liste euh, est-ce que tamit c'était pas pour influencer un peu l'opinion non man je pense que xam nga mbir mi daal lu ak lu ñu influencé opinion influencé opinion boo taxawee devant ces magistrats là maître waar wax na ko nee na mm-hmm. magistrats yi kenn mënu leen a influencé mm-hmm. comme magistrats yi comme mënu leen bu ñu la jiiñee loo deful boo ñëwee dina leer naññ que mu doon ay élection ak veille élection yooyu moi je pense effectivement la la la des comptes n'a pas de a n'a pas de temps y pas de moment y a pas de